ami fidèle euh, internet yi nga xam ne ñu bàyyi xel ci chaîne YouTube Tawfekh Production jërë ngeen jëf ci ànd bi ñun ak topp suñu ay programme suñu événement euh, tey jii ñu ngi fi nga xam ne moom moo di ci foire euh, bu Ndakaaru li ko sabab nag mooy dafa am programme salon bu am solo bu fi amee fii ci foire de jaba bu yaatu bi nga xamante ni liggéeykat yu bëri dañ fi am xemmemteef di fi daje lépp nag li ko sabab mooy fësal lenn ci ay li ñuy liggéey te jii nag ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di Euh, salon maison déco euh, salon maison déco nag boo ko déggee ci salon bi la sa xel day dem ci euh, wàllum décoration waaye itam ci wàllum dëkkuwaay loolee lépp nag ku nekk xam ne ne ñu koy amal mooy waa APDA di agence bi nga xam ne moom ñu dénk lépp luy wane ak suqali ñoŋal wàllum li di métier yi nga xam ne ñu ngi koy def te di ci liggéey ak loxo wala boog ñuy wax wàllum artisanat loolee nag mi ngi bànqaasoo ci ministère bi ñu dénk gàll ko lépp lu jëm ci wàllum tàggatu geek lu jëm ci wàllum formation professionnelle di ministère concert boobu la mu mel ne kon euh, bi lépp salon euh, dina am ci diir bi daanaka mm, euh, ñu ngi ko door ni ki talaata ji ak àllarba ñu ngi ci ñetteelu fan bi tey jile bokk ci ñeenteelu fan bi di ajjuma bi mu war a jeex samedi dibéer mu nekk bés yi nga xam ne ci lañu nar a amal xeexaw yi jëm ci wàllum exposition yi wane liggéey yi nga xamante ni ñu ngi ko amal ci wàllum dëkkuwaay ci wàllum kër ci lépp lu jëm ci wàllum ay salon boo duggee fii ci biir da gis ne vraiment fii ci Sénégal expertise nationale wala préférence nationale di nga ne euh, loolee lu fi yemb la tax incha allah rabi daañu dugg si biir si yenn euh, stand yi nga xamante ni. ñu ngi fii au niveau de ce salon daan leen ko euh, ñëw de fond en comble daal koy découvrir également baaxee leen ko ci métier yi nga xamante ni jàpp nañ dina bokk ci li promouvoir wàllum euh, xëy euh, wàllum li nga xamante moo di main d'œuvre locale waaye fexe ba li nga xamante moom moo di wàllum sunu artisanat bi gën a mën a soqaliku kon lépp lu di jumtuwaay tabax moo xam salon ak lépp lu jëm ci li ñuy yittewoo ci wàllum kër incha allahu rabbi daan leen ko digtal dara du leen ci ump ñu ànd yéen ci biir voilà mesdames et messieurs yéen ñi ñuy topp ci internet yi Tawfekh Production ni ñu ko waxee ñu ngi ci salon bi fii léegi ci euh, maison déco maison euh, mu nekk li nga xamante moo di salon bu am solo bu waa PDA agence pour la promotion et le développement de l'artisanat euh, également une agence qui également fait partie donc des structures de l'État du Sénégal donc surtout au niveau du ministère de l'artisanat dañu dugg ci biir bu baax a baax daal di leen di fas yéene wana li nga xamante moom moo soxal wàllu wi di liggéey bi ndax fii ma taxaw nii gis ngeen villa bi ni mu jekkee moom la leen bëgg a découvrir wan leen ko ndax villa bi di kër gi ñi ko liggéey mooy ñi nga xam nag ñoom ñoo di sénégalais yi eh, di yewoo fii am expertise bi am xam-xam bi ak xarañteef gi ngeen gis sama waaju baax ji gis nga moom mooy nettoyer jardin bi ak kër gi di ko defar ba mucc ay eh, kër gi am na toutes les commudité yi nga xamante ni moom lay yellool eh, nekk vraiment ay normes yu am solo kër gi également boo xoolee li ñuy wax les normes architecturales respecter nañu ko boo xoolee vraiment espace bu am solo la nga gis également des visiteurs ñuy ñëw di visiter kër gi. Euh, kër gi nag suñu euh, ay euh, fii si réew mi lañ ko liggéeyee xarañteef gi fii la nekk di lexpertise locale ou nationale ou vraiment li nga xam ne moom moo di xarañteefu réew mi ngeen gis également qui respecte les normes architecturales ku nekk xam ne avec vraiment conséquence climatique yi booy tabax war xoolaale bu baax anam bi ngay tabaxee ngeen gis également comment salon est bien fait euh, gis ngeen ko ni ak visiteurs bu baax a baax wane ni euh, Sénégal lépp ngi fi tout est là euh, également ñu gën a accompagner sunu artisans yi ñu gën a mën a rek promouvoir seen liggéey mu mel ne am na ñu fekk bu dee am na ñu ci mën a sànni kàddu. lépp fii leen koy créer fii leen koy defaree mooy maanaam produit li ñuy produit li ñuy consommer fii leen koy produire junnuñu dara ci biti. waaw te lool lu baax la fi dëkk bi. mu solo la vraiment visiteurs yi naka ngeen di échanger ak ñoom est-ce que vous avez de retour par rapport ak. waaw waaw waaw yi kontaan nañ lool lool lool instant bii nii ñëpp ñu ngi tàmbalee def ay commandes ñëpp bëgg nañ ko bëggatul kenn bëggatul dem di def ji ay euh, di importer di indi. mais yu mel nii ku ko soxla euh, yan démarche nga mën a def pour mën ko am vraiment. waaw ñun nag suñu bos méttiwul nag parce que lii nii ñun ñoo décorer fii nii ñun ci décoration lay yëngu. Mm-hmm. mooy la demeure décoration. il suffit que nga xool nga woo ñu wala nga xool suñu page Instagram wala Facebook. nga gis lépp lu ñu a def lépp comme ça boobaa loo ci bëgg rek dinañ la ko yónnee. am na solo ñu lay jaajëfal baax vraiment mu nekk euh, numéro bi mën nga ko joxe aussi. waaw waaw numéro 77 la 724 91 22. mooy la boutique mooy Facebook bi demeure décoration mooy Instagram bi. am solo euh, mu nekk salon bu am am solo euh, nga xamante ni vraiment man dinaa ñam tuuti ci fauteuil yi sax ma toog ci tuuti ñi dëkk ci réew mi. di liggéey ci réew mi bëgg a tekkee ci réew mi loolu aussi vraiment encore une fois ñu euh, demande l'aide euh, donc état donte mi ngi def ay jéego mais gën a accompagner sunu artisans yi nga am kër gu yaatoo nii macha allah décoration bi rafet euh, lan nga ci mën a wax. ah li ma si mën a wax dafa bëri parce que man je je prône vraiment pour le made in Sénégal le made Africa parce que dañu am suñuy ressources. moi-même je suis artisane damay def ay draps damay def ay trousseau bébé donc bu ñu gisee ne léegi maanaam la qualité de finition qu'il par rapport à nos artisans dañ mënuñ lu kontaan ci rek parce que kenn ku nekk balaa ngay dem di uti ji leneen ci dëkk keneen xoolal la say euh, la say di def nga nga jël nga jëriñoo ko donc vraiment une très belle chose euh, initiative bi rafet na liggéey bi rafet na et de plus en plus les gens ils tendent vers l'excellence quoi et c'est ça l'essentiel. Euh, da nga wax lu am solo dañu gis souvent suñu jigéen ñi seen kër yi dañu bëgg importer bëgg lu jugee ci lal yeeg salon yi tey yow jigéen ngay waxee noonu day mel ne kon le message est mooy que nañuy bañ a xeeb li nekk ci biir réew mi. laay bañ a xeeb d'autant plus que maanaam bu dee ressource bi ressource bu baax la après bu amee qualité qualité de finition bi ci war rek automatiquement ñeneen ñi duñu ñu yóbbulee dara newul ne ñeneen ñi ñoom euh, ñoom ñoo gën le mais ñun it am nañ ci lu nga xamante ne ci suñuy ci suñuy liggéey quelque chose d'extraordinaire sincèrement vraiment quoi état du Sénégal nañu jàppale. nañ ñu jàppale vraiment jàppale artisans yi xam ne gëm nañ seen liggéey bëgg nañ seen liggéey mën nañ seen liggéey nañ leen fexe jàppale ci nu ko mën a nu mu gën a gaawee ci nu mu gën a yaatoo pour que ñëpp mën a jot ci article yi ñi nekk Sénégal di consommer made in Sénégal ñi nekk Afrique di consommer made in Afrique comme ça keneen ku fi ñëw ci réew mi mën a consommer sa say say say bagages. macha allah kontaan maa la gën a kontaan. Ah, sëñ bi dina kontaan. waaw maag moom ñoo àn sax <laughs> ñoo ànd. waaw sëñ xam naa moom sëñ bi moom xam naa ne bu ñibbee dina woowaa waa euh, structure bi nga xamante ni vraiment gis nga liggéey bu am solo bi ñu def di waa euh, lii di la demeure décoration mu mel ne kon euh, gis nañ alaaji bi soxna am lañu doon tàllal léegi micro xam naa moom du yàgg dana woote ci numéro yi ñu joxe léegi di 77 724 91 22 ñi nga xam nag ñoom ñoo di ni ngi ci Almadies zone 12 lot 12 bokk foofu lay ngeen gis téléphone bi lee am nañ ay conte am nañ ay plateforme yoo xamante ni Instagram mën ngeen leen cee jot wala ci Facebook tey nga ànd ak madame soxna si ñëw file euh, wax na wax ju am solo vraiment ci euh, made Sénégal nga ànd ak moom mel na ne fi nekk nii moom euh, xam naa ne commande bi léegi mu génn. <laughs> incha allah incha allah donc euh, d'abord féliciter ñëpp parce que artisans yi fi nekk yëpp ils font vraiment un travail euh, magnifique surprenant et bon ñun euh, c'est ce dëkk yëpp boo gisee ci àddina bi ku nekk da ngay jéem a xool li soqali sa réew donc c'est normal que nous aussi ñu xool ni artisans yi bu ñu defee loo xam ne vraiment c'est euh, un travail de qualité il y raison que ñu mën a ñu bañ a loolu vraiment et, et développer ko très bien ñun loolu kay c'est non ma je suis je suis c'est que je suis sans sans sans sans voix. Ah, macha allah kontaan na gis nga ko ñu koy ñaanal tamit euh, xéewal. bokk na ci li promouvoir également euh, lii di l'employabilité des jeunes ndax nag dina tax nit ñi gën a mën a am lu ñu jàpp. gis nga ko ni salle baa nga ne macha allah mucc ayib lool te jekk. rafet macha allah gis nga ni lii de wane ne réew mi lépp a ngi fi lépp mën na fay yem te lépp mën nañ ko fay defaree kon bu ñu xeeb dara bu ñu xeeb kenn it gis nga ko nii euh, gis également hmm, cour bi nii cour bi mën a toog mën a euh, waxtaan di jël air ci jardin bi gis nga ko ni euh, très beau jardin ici vraiment au niveau de cette villa magnifique très jolie et très belle fii xale yi la gis nga moto laa xam naa moom bébé Mariama il faut mu am yu mel nii jàmm gis nga ko nii Euh, ni mu jekke macha allah dal waay waañ baa ngi ne nag gaay waay nag kër nag faaw nga defar lekkukaay waaw xéwalukaay gaa bi nag dañuy defaree xéwal yi waaw waañ baa ngi nii yaaññi na li lépp Sénégal lañ ko defaree li lépp Sénégal la jógee mu wane ne kon réew mi donc vraiment l'expertise et là euh, il suffit juste de les accompagner ñu gën a mën a def li ñuy def gën ko mën a